président de la république Macky ak mboolem délégation bu mag bi nga àndal bàyyiwuma kenn moo tuddee premier ministre mu yóbbaale mboolem ministre yi ci teew yëpp di nuyu itam mboolem ambassadeur yi fi teewal nag ñu ngi ñu di ko yëkkati ci ndigalu Serigne Touba Cheikh Sidi Moukhtar mi nga xam ne moo fi toogee jotaayu Cheikhul Khadim yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér waaye ci teewaayu ak ndigalul jëwriñam ju tedd ji teewal ko fi di Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadou Bachir mi nga xam ne moom la sëriñ bi wax moom mi nga xam ne mooy jëwriñam ne ko mu teewal ko fi war yëkkati kàddoom mu waxaat ne naa ko jot li ci turam te mu feggoog rakkam Serigne Sidi Mbacke ibnu Cheikh Abdoul Ahad Mbacke moom mi nga xam ne it moom la sëriñ bi dénk mboolem lu aju ci wàllu dëkk bi kon ñu di la xamal ne mboolem njabootu Serigne Touba gi ndax nuyu nga leen ñoom ñëpp ñi ci ëpp ñi ngi fi ñi am ngànt ba nekkuñu fi itam yabal nañ ku leen fi teewal mboolem njabootu Serigne Touba gi ñëpp ñëw nañ. wuy si njaboot gi mboolem mbokk yi yi nga xam ne mbokki sëriñ bi lañ mboolem seexi sëriñ Tuubaa yëpp itam dikki nañ wuy si sëriñ bi mboolem taalibe yëpp itam dégg nañ woote bi nga xam ne sëriñ Muntaxa woote woon ko ci ndigalu sëriñ bi kon nee na sëriñ bi neen mi ngi sant ñëpp mi ngi duy ñëpp di sant ñëpp di rafetlu itam liggéey bii muy teg xeer wu jëkk ci autoroute Touba Thiès te sëriñ bi ci boppam defal ko boppam ci loxoy boppam loxoom yu teddee ànd ko ak président de république kon yàlla àgg ak jàmm ba ñu ubbi waat ko ni ñu ko tàmbalee ci barke sëriñ Touba ñu barkeeloo ko it ca na ko sëriñ Touba defe woon ca loxoom yu tedd ya ca njaareem ba muy teg xeeru jumaa ja ba mu yëkkatee loxoom yu tedd ya dafa wax ne وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم waaye mu di ñu fàttali itam Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké mi nga xam ne moo njëkk a wóotu Serigne Touba bu ñu teg xeer wi jëkki ci raay bi diggante Njaareem ak Touba àndoon ko ak rakkam yu tedd ya di Cheikh Mouhamadou Fadil Cheikh Mouhamadou Amine ak Cheikh Mouhamadou Bachir. ak mboolem njabootu Serigne Touba gi yëpp ñoom la ko àndaloon kon président Serigne bi nee na mi ngi lay santu bu baax te di la gërëm ci yéenu jëre ji nga xam ne tàmbali ko ci dëkk bi mooy liggéeyu autoroute bi di ñaan suñu borom àggale ko ci jàmm te ngeen xam ne taxawu askan wi ba ñu nekk ci jàmm seenu nekkin rafet ci fraude kifaay yi la bokk moo tax suñu borom wax ci alxuraan ne هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها لولا لا سن بورون ديفالون وا قريش وا مكه باتخ منالين فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف توبا نك كير لا دو اب توبا تديكو غرب غا الجنه مو نيك غرب غو خامني اي بانخاسام لاونا ادنا سيب ميغناتام اك كبارم ياتونا سي نييب kon ndam la akub sag ñeel Sénégal gépp muy loo xam ne Serigne Touba ñaan na ko boromam ba mu may ko ko kon lépp lu sottile ba noppi ni mu ko waxoon Cheikh Mahmoud Moustapha Mbacké ne ko fii ba àdduna di tukki de mboolem lu ma yéene ci yoon bi rek def naa ko maa ngi mel ne rab bi nga xam ne dafa defar ay soru ay ay ay ay ay ay soru yéeram denc ko lu jot a lu mat a génn rek bu waxtoo jotee ma génn ko ñëpp ne ana fu mu ne woon waaye Sëriñ Tuubaa noppoon na ci lépp wax waxoon na it ne ca njaareem la ma sunu borom wane li nar a xew sama ginnaaw ba mu fàgg ko lépp moo tax dara luy nu luy nuru aafatu ak kadru du am mukk ci yoonam moo tax bi muy sanc dëkk bi dafa wax ne ñaara tax ma sanc ko daw nit ñi ak daw li nekk ci loxol nit ñi mu ne bi ma fi ñëw itam ñaar rek laa fekk saawooy nag ak windew pël loolu mooy fekku fi kenn mu taalif xasida ak matlabul foo sëñ mu nekk li ngeen di tuddee plan directeur bu Touba te booba sëriñ bi mi ngi ci ron mbaarum gattax mu jàkkaarloo suñu borom di ko wax ne wajibu lahal xayra min al jihaati tax mu ñaan suñu borom ne ko fa kullu man chatamani aw laama fa hablahu tawbata wa istislama képp ko nga ko octobre koo xam ne ñaaw na njort ci man itam na wëlbati xolam ba njort lam doon ñaaw ci man mu dañ mu andilu nag masruul fawzayni muy foofu muy tax ak àdduna ak alaaxira te loolu te mooy benn dëkk boo xam ne boroom mi mi ko sanc message bi muy joxe mooy sellal ci kiris bi ñuy tudde al utruxatul xarbiya te mooy doctrine modernité wala ijtimaaya ak psychologique wa taxrib ak occidentalisation Sëriñ Tuubaa mu sonni ci loolu lépp indi na lu bees muy mashruul fawsayni mu andi njub ak texe ak mbaax jëme ko ci àdduna bépp moo tax Sëriñ Tuubaa waxoon na ne ñaara fi nekk abdan aataynaahu rahmatan min indina wa allamnaahu min ladunna ilman ak inna makkannaa lahu fi l wa aataynaahu min kulli cheyin sababan te doole ji xam ne suñu borom da ko jox jaam bu ko déggal te sopp ko liggéeyal ko ak doole ji nga xam ne moom la jox nguur tubaab bi indi démocratie ngir mu wuutu loolu doole sunu borom ji muy jox jaamam bu mu gërëm démocratie nag dafa soppilu carte électeur li ko politicien bi di jaay ci programme boo ko ko joxee mu soppil ko lu waay te mën na ca bañ a bàyyi xel ni suñu borom diglee wala ni natt bi tëdde Sëriñ Tuubaa nag dafa waxoon ne tubaab yi day damay njëkkante ñoom képp koo xam ne noppi nañ ci moom ñàkk naa ko ba faw képp ko xam ne njëkk naa leen ci moom itam ñàkk nañ ko ba faw waxit ne seenu doxin de mooy bu dara nee ñuux ñuux ci ab ñag dañuy seet ca mbooloo ma ka ca ëpp fit gën gàttum xel ñu yebal ko bu loola demee bu jëflanteek moom bu ko notee bu ko notee ñu nëbbu ko féetewoo ndam da bu ko loola notee nag ñu xëpp ko toroy bu mu indil nu loo xam nag ñii ni ndax ñaanal li muy ñaanal ñi gëm yàlla taaju ci moom moom lay ñaanal ñi gëm yàlla te ajuwuñu ci moom boobu taxawaay moom la céeri fi réew mi aare woon réew mi ba tax na juyoo yu néew yi am ci biir tarixa yi mosula yàq dara ndax ku ne dangaa war maalal sa morom la mu gëm ginnaaw boo jàppee la gën a dal sa te suñu borom dafa wax ne jaam bu sax ci samay ndigal te farlu danaa la teg ci yoon wa dëppoo sa mbir wala si ne jaahadoo fii naa lanahdiyannahum subulanaa al imaamu yi dafa wax ne ku ne la mu seet ba mu doy ko ba mu jàpp ne ba mu jàpp ko ne mooy dëgg bu mu jàpp mukk ne keneen la mu jàpp du dëgg loolu moo di ak maandu ra'yi sawaabun yaxtamilu xata wa ra'yu xayri xata un yaxmilu sawaab Sëriñ dafa wax ci Nahjul Qadaa ji ne boo bëggee mucc ci làmmiñi nit ñi dangay fexe ba salaam ba sa mucc ci ci ñoom ndax ni nga amee ay sikki ni la ñu amee ay làmmiñ wa in absarat aynaaka ban faqul laha fala tafsuri yaa aynu linnaasi aynu te lu baax aku yiw moom lañuy ñuy rawante waaye safaan ba kenn du ci ëppalante kenn du ci rawante te rasulullahi sallallahu alayhi wa dafa wax ne ak julli dëgg mooy ci mbokkum jullitam yépp mu ci ci loxoom ako làmmiñam rawate na li jëm ci pas-pasum nit te yaakaari mbooloo kenn du ko kafe ndax tariixa bu ne am nga say mabaadi yu ko fonde yu wóor yoo xam ne bu doyul sa morom yow fu wér nga ko teg kon yàlla na nu dégg aaya bii te jëfe ko ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izatil hasana wa jaadilhum billati hiya ahsan waaye waxante lu ñaaw ak i sikki loolu du yóbbu fenn am réew Sëriñ Tuubaa nag Cheikh Abdoul Ahad Mbacké dafa waxoon ne dafa waxoon ne ñi ñëw ci man ñaari ñaari ñaar ñaari xeet rekk la ki nga xam ne adduna rekk ko indi ak ki nga xam ne àllaaxira rekk ko indi nee na ci nga xam ne àdduna rek ko andi yàlla sunu borom jox na ba mu doy sëkk te doyu mu ko dara kon nag ku agsi mooy jox na ko ki nga xam ne nag àllaaxiraa ko tax a fa bëgg mënal naa la te dinaa la defal moo mu wax ne mu ne ki ma jaaxal daalu mooy ki nga xam ne yàlla def neexu ko mu wax ne anna man waasala nii li xaradin dunyawi fa innahu yakunu min al muxarabin wa anna man waasala nii li dunya faqat fa inna allaha yukrimuhu maadaama xëyan moo tax mu wax ne qulubu man yasurruhum durri maa qad wajilat wala ilaahu xamaa nee na bépp xol boo xam ne sa mbég mépp mooy lor ju jëm ci man nee na yërëm naa ndax waxtu ne ci njàqare ngay dëkk ashkuru llaha zalwara bintifaai bi kitaabin saaxal ida bindifaai nee na maa ngi sant yàlla borom bindeef yi nga xam ne ci daraja alquran moo ma sore sama noonu yëpp ba seen loolu man ak si man haddadallahu man xalaw nii baidan li si waa jaani bi xayr ijtimaai nee na suñ boom tëkku na képp koo xam ne noonu ko ma añaani ma xamaaniya almuxtaaru bil ilahi an kulli suuin wa an ilmalaahi nee na rasulullahi aar na ma ci lépp loo xam ne lu baaxut la wala loo xam ne bëgguma ko xajabani llahu an il aadi fa laysa yan huwa jaani bi muaadi yàlla suñu borom itam arnama doxna sama digge sama non ba sen jenn lor du jëm ci jiman yi may nak bu ngeen degge Serigne Touba diko wax du ndamu waye sante xiwol gi ko yàlla defal na ndax rasulullah suñu bam dako wax ci alquran ne ko wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis tax Serigne Touba di wax ne qultu wa qasdiya taxaddusun bima li qaluhu wa la yulaqi ni'ma suñu borom nak dako defal ay may ak sañ-sañ yo xamne ko ko bëgg da ngay def limu def te daj li mu daj te àndaale ndam yi mu yi mu àndaale te mooy ñu génn ko réewum juróom-ñaari at di ko mettital def ko résidence surveillée ñaar fukki at ak ñaar gànnaar ci yéen ba njaareem kon président sëriñ bi naan mi ngi lay sant bu baax a baax ci mboolem li nga xam ne def nga ko ci dëkk waaye day wax ju solo da ko waxoon ne ko lépp loo xam ne lu ma yitte woo la samay soxla du bari waaye bu accès dana mat soxla maa ñëpp koy bokk tamaa ci gën néew le ndax du weesu aw yoon fajukaay ak làmp aku yoon ak yu ni demee neex yooyu nag mënalu ma ko sama bopp te waruma bu ma ko mënoon itam waruma yéen la war loolee nag Cheikh Sidi Moukhtar foofu rek la nekk nekkoon nag li nga xam ne mooy sama yittee bopp nag ak li may liggéeyal Serigne Touba addi yi ma taalibee Serigne Touba yi du jox man na ko lijjanti Cheikh Sidi Moukhtar dama foofu rek la nekk addi yee nag laa am tuuti lu ma ci bëgg a leer ndax lu am solo ci lislaam la moo tax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ak dégloo moo tax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax ne tahaadaw tahaabbu nee na joxlante na ay addiya kon ngeen soppante waxoon na it ne bëggante mooy màndargam gëm yàlla mii tax a tàbbi àjjana moo waxoon moo tax moo waxoon ne laa tadxulul jannata xatta tuuminu wala tuuminu xatta taxabbu fonk gu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fonk addiya moo taxoon mu wax ne walaw uhdiya ilayya ziraahun aw kuraahun la qabiltu loolu di wane ne lu tuuti du xeebu ndax ويقول صلى الله عليه وسلم ما درع عثمان لولا تخون سرين توبا وحني توبا لعبد مريد صادق لهم bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyatin looloo waral Cheikh Cheikh Issa Dienne Cheikh Issa ñeme gu mu ñeme addiya tax na Serigne di dox ci sàkkiti njaari mi fu mu romb rek mu ne ko bul bul fàtte Issa gookeem looloo tax danaa yooyu jamono dawut ëpp million te sëriñ bi nu la neex def ko bu la neexee taal ko loola ba fi mu ne waa këram ñu ngi koy def sa yoon loon daaw bi ñu koy jox Cheikh Sidi Moursar dem na ci téeméer wi danañ ko joxwaat sëriñ Tuubaa nag ak rasulullah ba ñu fayee ko lii nu ko fayee ku mu neexul da nga sonn ndax aw naqar ngay dëkkee ak dégloo. moo tax ak dégloo. moo tax sunu moo tax sunu borom di wax moo tax sunu sunu borom di wax ci alquran ne. digloo leen digloo leen digloo leen mu àggale digloo leen. Sëriñ Tuubaa wax ne isil xasuudu man aasara bitibaa'i ndax kañaan nga day muur ay bëtam bu du gis dara Cheikh Mouhamadou Fadil nag nee woon na. digloo leen digloo leen mu àggale digloo leen. moo tax sunu borom wax ne. am yaxsuduuna naasa ala ma aataahum allahu min fadlihi Sëriñ Tuubaa wax ne isil xasuudu laysa sunti faa'i bi fadli man aasara bi itibaa'i nee na ki añaan du jariñu ci kim jamonoonteel ndax kañaan nga day muur ay bëtam bu du gis dara Cheikh Mouhamadul Fadil nag nee woon na Touba diis fi jéem a defar ba defaroo fi waaye diis fi jéem a yàq ba yàqoo fi Serigne Mouhamadou Lamine Gueye bokk ci ñi njëkk a topp Serigne Touba dafa waxoon ne war ma ñett la war ma sa digg sa borom war ma sa digg sa mbokkum julit war ma sa digg ñi nga bokkalut dara te mooy ñi nga bokkalut diine nee na war ma sa digg ak sa borom. mooy lu mu digle nga def ko lu mu tere nga bàyyi ko lu mu dogal ci yow na la neex nee boo ko defee wàcc nga ak sa borom nee na war ma sa digg sa mbokkum jullit nee na mooy ngeen bokk yéene bokk bëgg-bëgg bokki pexe bokk ngeen am nee na war ma sa digg ak ki nga bokkul dara nag muy sab jàmbur nee bu ko bu ko tooñ bu ko xeeb bu ko yab boo ko defee rek da nga jubóo ñëpp موتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحني الجماعة رحمة مولو تيلا سوني برام دو اكتيا مادم موتا سوني برام يتم دينيو واتن ديكو اك تقلكو موتا موي وحني وزكرو نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنهمتي إخوانا وكنتم على سفا حفرة من النار فأنقذكم منها لينا نسوين تبع جانجل تدوين كواتي مكو ndax amuñu soxla ciy wax yàlla du fay jëf mukk bàyyi ay wax alkilaabu tanbaxu wal qaafilatu tasiru te duñu wax mukkit lu ñaaw ndax suñ borom dañoo digal ne wa xooloo linnaasi xusnan rasulullahi dellu tegaat ci ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri falyaxul xayran aw liyasmut mbirum sëriñ Tuubaa nag dafa mel ne jant mu nekk ci digg digg njolloor képp koo xam ne lànk nga ne doo ko gis du wàññi dara ci leeraayu jant wa samsu raddaduha fi l ufqi taaliatun an laa yara daw aha man lay sosa basri sëriñ Tuubaa nag saxaar la goo xam ne taxawul day dem ku dugg mu yóbbaale la lu taxaw ci kanam mu jaar ci sa kaw jàll faggul nanu fag faggul faggul loo xam ne itam ba àddunay tukki fépp ab taalibeem nekkee nit ñi dañ koy ñee te loolu moo ko bindal boppam wax ne wa hab li kulli man a wirdi wa kulli man ta taallaqa bi azyali maa yaxbiduhu xayruhu min ahli asihi amin ya rabbil alamin ni ko mu bind woon wax ne kataballaahu tabaraka wa taala anna dawlatan nasara intaxalat huna te loolu moo di dafa bindoon xam xamle ne tubaab yi di colonialiste yi danañ bàyyi ko fii ci senegal mu nekk ci yeneen loxo ba ko bindee nag loola dafa duggoon ci waa wa allamnaahu naa ladunnaa man te booba ña fi nekkaloon tubaab yi di gàllankoor mbirum sëriñ Tuubaa te amuñ basiiratu dañu doon wax nit ñi di leen bind ay leetar di leen wax ne leen ñi leen di wax ay wax di leen wax ne sëriñ di leen di leen wax ne tubaab yi danañ jóge fii ci senegal na ngeen xam ne looleekat add xasu alamin la kon nag ñooña histoire àtt na leen seen digg ak sëriñ Tuubaa moo tax Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké dafa toog fii ci Daaru Xudóos نيغوم نياخ اي ساكيت خال وركو ام كين كو ييكتي وين بيت وشعل به داريك المدينه بركه والكعبه المصونه ام كون تك مونوكو مبارو دون كاي سيك ساكا كوكو ني تيل مونوكو ماند لي ما سيرين توا واخ ما تك سي سابت لما سيرين توا واخ ما تك سي سابت لين ما واخ تا غيسوغومكو لا غنا غام نيكو ما يورون كاسو كافي مو وور ماني لي كاسو كافي لا با ناتبلي ومكو la ma Sëriñ Tuubaa wax te gisaguma ko moom laa gën a gëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu